waaw maa ngi wax salaamaaleykum di nuyu waa Sénégal gépp ak li ko wër di nuyu waa Thiès surtout Thiès di nuyu sama bopp di nuyu képp ku yaakaar maam Sara Fall di nuyu ahlu Baye Fall gépp ak ñi ko wër gay gay alliance Baye Fall hmm, dëkk Thiès maa ngi siyaar ñëpp. waaw loolu yàgg na Baye Fall moom boo ko doonee rek war nañ la ko wooya ah. li tax nga dëggal ko nag yaa koy def gën a avancé ci kanam parce que tur bu day wuyu borom. man sama lépp dama ko dama ko kaadare ci ci ci ci ci bagage samay bagage yëpp dama ko tënk ci lépp Baye Fall lu lu nekk ci man bu ma bu ma sentiree ni que maam Serap Fall nekku ci sax loolo du yàgg ak man il faut mu Baye Faale. welo bi euh, kii mooy Lamp Fall Lamp Fall laa ko tuddee lu tax Lamp Fall defaroon naa beneen welo bu tuddee woon ko Baye Fall. mu amoon toiture ci kaw garaawoon amoon ay bagage lu nekk nekkoon ci mais bi ma ko jaayee ma dugg ci bii bii nag boo xool welo yi ci Afrique yëpp moo leen sut ndax ñun suñu sëriñ bi boo koy wutal loo koy tuddaleel il faut nga méngale kook loo xamante ne que day du fi am ndax maam Cheikh Rafal ku ne xam na ni boroomi bagage la woon kenn la woon kon boo koy tuddee ab welo dafa ne war a nekk welo bu garaaw boo xamante ne que boo koy xool ci kaw nga koy xool moo waral mu tudd Lamp waaw welo bi dafa garaaw nag ci man because welo bi euh, maa ngi ko créé woon 2002 mu tombe woon ak équipe national bu senegal de football ak yooyu mu nekk affaire boo xamante ne que ci man du du du hasard la ñëwee ci man quoi ndax am na beneen welo bu ma njëkkoon a yor créé woon ko bu yàgg 1994 laa ko yoroon 98 euh, mu tàqali ko ak man bii ñëw 2002. histoire la boo xamante ni que welo bi comme ni ma jàppe sama doom laa ko jàppe parce que nekk na malgré ay weñ la sax mais œuvre bi mu doon ci man dama dafa sori ci sama xol moo tax mu jaral ma yenn affaire yi quoi waaw waaw waaw waaw ba tubaab bi sax tubaab bi bëgg nañ ko tubaab bi tubaab bi fay nañ ma ci xaalis ba taay xam nga ma lay wax ne la welo bi fay nañ ma ci 3 millions jaayu ko doo ko gëm waaw parce que welo bi jaral na mu lëpp lool man gis naa ne que welo bi normalement bu fekkoon damaa dem bay tàqalikoog moom war naa ci am ay bagage yu yu yu takku inspiration bi lañuy fay xam nga tubaab buy fay aar du fay du fay ponkalaay du fay ngandaay day fay xel boo xoolee tey Sénégal ñi fi ëpp xel ñëpp président bi amul cinquante ans wala bu ko amee du ko ëpp am na ñu am quatre-vingts ans amuñu benn xel inspiré la tubaab di fay du fay ponkalaay wala ngandaay non wiiri wiiri man ab artiste laa woon naka jekk doon théâtre ku xam Baye Ndiame Sène ku xam théâtre xam nga Baye Ndiamé Sène mooy sama xarit moo tax ma dugg ci wàllu théâtre moo ma dugal ci théâtre wiiri wiiri nag ñi koy tourné maa ngi ñoom dañoo yàgg saa neex ak Assis ak Cheikh Ndiaye ñoo ñu yor scénario bi maa ñoom ay saa sama xarit la woon ñu daan demalante ay teraanga di jokkalante Assis sama xarit la seex Ndiaye sama xarit la ñu doon ànd di def lépp sottante ay xalaat man nekkoon benn waay boo xam ne damaa yàgg a nekk bomb am lu ne ci man ñi ñi ñi ma gënoon a jege xamoon nañ ko mais bëgguñu ko woon exploiter ñoom ñi nga xamante ni que ñoom laa nekkal ñu xam sama talent ñu dugal ma ci wiiri wiiri ndax nit balaa nga ko mën bala ngaa liggéey ak moom nga xam ko ñoom xam nañ ma te bëgg na nit ñi xam ma parce que euh, am naa fu sama tur àggoon parce que man def naa ay documentaire art lu def naa ci lu nekk mais wiiri wiiri euh, c'est international tey mën naa la wax ni la ko wuy naa appel sax muy Inde wuy naa appel fu nekk adduna bi defe naa ni fi ne booy wax média ak télé ak théâtre moom danga ma ci boole moom te loolu yàlla ci wiiri wiiri la ko jaarale maa ngi koy leen koy sante bu baax di leen ko gërëme du ñàkk nit lu muy def ci aar du ñàkk benn bis ñëw mu mu war caa tàkk mu tàkk ca loolu la rek du ñàkk tam ci aar nit di def benn affaire war caa faye faye ca am na ñu dugg ci saako bi kenn déggatu leen mais am na ñu génn saako bi te loolu lépp à travers télé lay doon tele bu mel ni TFM àgg na fu nekk ci àdduna bi boo ci dee dawal série boo xamante ne que nit ñi bëgg nañ ko mu ne ci xooli sénégalais yi nga di ci gis lépp parce que wiiri wiiri boo ci dee gis Baye Fall sa xol day seet dangay kontaan parce que da ngay gis comédie bu garaaw hardcore xam nga comédie dafa am ay dimension da ngay gis dimension comédie boo xamante ni que loolu moo ci am da gis ni lii du du lu ñu créé lii naturel la naturel boobu nag xañ na moo ak tax gars yi yóbbu ko yenn ci yenn yenn bagage yi daal. non man bokkuma Soleil Levant ci ci turub bokkuma ci turub ba waaye bokk naa ak waa Soleil Levant waaw waaw ñu ngi ñuy fay kay waaw weer dee ñu fay ñu de duñ ñu ah man de yore luñ ma dara ñu ngi may fay normal. non xam nga loolu boo ko waxee Sénégal gi. daay man house non gu ma waaw war na maa tourné na waaw danaa ci bokk bu soobee yàlla waaw dafa am foo xam bu ma bu ñëwee rek wiir wiir xam nga ay ñaari épisode ba ñett daw na te tourné wu ma waaw daay man house ñun la rek waa kër gi la Baye Fall yi la bu ñëwee dañ xam ne ñëw nañ incha allahu rabbi waaw non garaawul. parce que man célébrité yàgg naa ko waa man ab star la woon Thiès gi naka jekk ñëpp xam nañu xam nga raison ñëpp ku fay yewoo xam la yombul nekk ci raison kuy yewoo ca raison ba xam la loolu yombul te am naa ko fi am naa ko fi 93 ba fii ma wax ak nii kon lii benn affaire la rek wiri wiri bi mu commencé daw daaw laak ren rek mais wax dëgg yàlla man euh, yàgg na maa yëngal de daa gën a yëngu nag xam nga junjum bokk bokkul ak xiin junjum moom ku ne xam ku xam xiin xam ne junjum a dàq loolu la rek fii mooy sama atelier fii fi lay man ay pono lay defar fii ne boo kërëwee boo ñëwee ma defaral la waaw damay defar ay pneu man sama métier mooy vulgarisateur vulgarisateur mooy defar pneu jaay ko kole tibles yeeg pneu jakarta yi ak yooyu ak yooyu waaw man loolu mooy sama métier aar moom dafa ne ci man non aar moom dama cee juddu parce que sama juróom-ñaari maam yëpp ay artistes la ñoom aar moom ci laa juddu waaw loolu moom du ma si yàlla rek laa ciy sant parce que aar bi ci man la ne waaw saa boo nee moteur action rek ma doxal loolu moom ci ci man la ko sans boroom def du ñàkk nag looy ne ta gëm ko itam du ñàkk benn bis itam bu ca bu ca taraanga waree am wala ñu war la caa teral ñu teral la ca loolu la rek loolu la rek mais man moom. ku ma xam-xam ne man nii laa mel succès du tee ma ñëw di liggéey si nit ñi xam ma du tee ma ñëw di liggéey si bu ma yàlla mayee jàmm moom chaque jour danaa ñëw bu ma amee lu may defe nag mën na maa dem ñaari fan ba ñetti fan ba weer du ma ñëw mais bu ma defulee dara moom damay xëy si quoi bu dee ci wa ci réew mi moom li ci njëkk ci li may wax moom mooy ñu gore parce que am réew bu goree baree rek réew ma neex mais wax nit te doo ko def mën naa indi lu nekk ci am réew téléphone bii mi ngi sone nii jëlu ma ki may woo mi ngi yaakaar ni maa ngi def dama ko bañ wuyu fekk maa ngi ci liggéey bu ma paree dama ko war a rappeler il faut ñuy rappeler nit ñi li nga bàyyi ginnaaw il faut nga ngay dellu ci sa ginnaaw pour pour am li nga joxe tey mais boo fàtte fàtte la wala jamono jàpp la rek loolu day gën a suuxal am réew nañuy dëggu di wax raayit te loo waxante ñun nga def ko sàmm sa ngor nangoo liggéey bàyyi caaxaan yi loolu lay avancer réew mi mais bu kenn baasee ci kenn parce que ñëpp yàlla moo leen yor kenn ku nekk li ngay sa wërsëg da nga ci jot kenn munut a lekk loolu sa wërsëg loolu mooy loolu mooy loolu bokk na ci li doxalum réew. ñun yàgg nañoo xalaat naan bis bu ñu amee fu ñu la dugal nga toj da nga danañ la dugal yàgg nañ ko programme yi te wiiri wiiri ñëwut wiiri wiiri ñu koy biñ koy biñ ciy xalaat ma cee boole ci bank bee lañ toog ana bank ba baa nga ne de Cheikh alaaji góor ñuy xalaat ni ko ah Baye Fall eh non Baye Fall ko dugal ci série bi nañu ko dugal ci série bi man leen ban série ñu ni wiiri wiiri ma ne ah wiiri wiiri waaw wiiri wiiri war naa mën a teppi réew mi parce que bukki wiiri wiiri jaari ndaar yi mooy tur bu mag bi Youssou Ndour way loolu mooy tur bu mag bi bukki wiiri wiiri jaari ndaar yi lu bukki wiiri wiiri dana jaari ndaari loolu mooy baat bi mooy film bi noonu lañ ko tudde léegi ak lu mën a xew ci benn point lay mujj féete ji point boobu nag moom la ñun ñëpp Sénégal gépp di xaar mooy fu ñu tëje te yaakaar naa ñëpp danañ xam ne ñun ay xale lañu waaye euh, am nañ gis-gisu mag ñi loolu mooy baat bu mujj bi li may tëje nag mooy euh, di sant maam Cheikh Rafal bu baax ndax maam Cheikh Rafal amul lu dul moom di sant samay soxna sama ñaari soxna yi maa ngi leen di sant di leen nuyu bu baax di nuyu Ndeye Daabo di nuyu Asou Thiam maa ngi leen di bëgg bu baax ak Kassar.